jox ñu responsabilité yu ñu jox dafa def ay mécanisme suñu diggante dafa def ay jokkoo suñu diggante ay maanaa suñu diggante yoo xam ne dafay tax yegg na ca nit ne nit kat nit ay garabam ah fa nit nekkee nit garabu nit foofu la nit nekkee ku am solo ca lay aar doomu foofu la ñuy waxee ne tey jii bu ñu waree wax danaa wax ne man li may faral di waxtu bu nekk mooy li ñu wax ne mooy néew doolee réew mi benn paaj la dama koy jël def ko li war doon doole réew mi. Hmm. li ñu naan mooy néew doole réew mi mooy tuuti waayam moom mooy ne ñëpp danoo tu danoo dafa tuuti. Hmm. maanaam dafa tuuti ci ni mu ni mu ni mu waaye dafa tuuti sax ngir ne ñi fi dëkk bëri wunu waaye loolu la ñu war a jël nag def ko kattan def ko doole ndax ba mu tuutee noonu dafa fekk na ñëpp xamante nañ ba ñëpp xamante kay hmm. kon lu ñu xamul waroon na fi mën a bañ a sax ne bu ma waxee lu ñu xamul nag mooy jikko ju ñu xamul waaye tuuti googu mu tuuti bu fekkee jëluñ ko làmbeer ko def ko muy kattan te loolu la woon barka démboo Njaay jamono bi wax buntu pootu yeeg yooyu jamono yi nga xam ñi ngi wax ne gan waxtu bu mu mënti doon mu ñëw bu soobee yàlla dina lekk ndax bëggoon nañu gan naw ko ba dañuy am sax bologan, gan loolu sunu maam yëpp xam mm-hmm. xam nañu ko bologan, gan néegu gan yooyu yëpp ngir rek xormaal nit ki nga xam mi ngi ñëw mu leer la ne comme ni ko sama gënu góor bu baax di waxee mu ne gan daal ab ëmb boppam la boo ko yaatalee sa kanam mu ummi te bu ummee nga jëriñu boo ko tëjalee sa kanam mu dem bu demee yóbbu ëndam ëmbam amaana la ngay soxla gana la koy jox waaye yaakaar naa ne tey jii ci jamono bii ñuy wax dinañu wax bu baax a baax ci li nga xam ne man ci sama fànn loolu laay wax ndax yëpp daanaka wax ngeen ko waaye fànn bi nga xam ne foofu la nit war a dimbalewante ak ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu nekk ci mbiri kaaraange Euh, euh, euh, dañuy wax ne doomu aadama mënul fu ne mu ne fa loolu la jox jox mbiri kaaraange nga nekk IGP wala xaalam te sax nga nekk nga nekk nga nekk yow daal la jox kaaraange la mën rek ci jamono bi ngay aar mooy jamono ba nga xamee ne yaa ngi xool jamono ba nga xamee ne yaa ngi fi mm-hmm. waaye jamono ba ngay nelaw mënuloo ko mm-hmm. jamono ba nga xamee ne am nga yeneen itte mënuloo ko ndax dafay dafay am pour keneen war laa mën a féete foofu ma jàpp nag ne xëy na gannaaw buñ leen ndokkeelee ñoom gërëm leen ndax itam ñi ngi def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la gis nañu bu yàggu rek mbir xew na ci diir bu gàtt bi diiru ñi daanaka waxtu benn bés benn bés a genn wàllu ñu toppatoo loolu dafay fekk ne ñun ñi nga xam ne fu ne ña nga fa daanaka bu ma waxee fu ne ña nga fa du Babacar Thiam waaye fu ne El Hadj Bakaya nga fële mu ne El Hadj Serigne nga fële mu ne baabu Diop ngi fu mu ne Anta Xare nga fu mu ne ku ci nekk fa nga ne. Mm-hmm. am na loo fa xam luy luy war a tax bu ëllëgee boo fa gisee lu fa bokk rek nga xam ko. man foofu laay waxee. Mm. ndax loo nekk nekk nit ku yaa ngi ci kaaraange loo bëgg bëgg liggéey ñoom ñooñu dañ leen war a amal njukkal sax ndax mu ngi taw ñi ngi mi ngi naaj ñi ngi fi am na lu ma gis loo xam ne mi ngi am diggante nit ñi ak ñoom ñooñu rafetlu wu ma ko. parce que dama jàpp ne booy seet mbokk dëgg-dëgg ki nga xam ne pare na joxe bakkanam pour nga nelaw ki nga xam ne pare na joxe bakkanam pour nga lekk ba suur pare na joxe bakkanam pour nga naan ba màndi nga nelaw ba yeewu xalaatuloo lenn ndax gëm nga ne am na ñu nekk ci biti pour yow ñooñu am na bët boo deen war a xoolee bu weesu bëtu xeebaange ñoom it nag am na bët bu ñu la war a xoolee yow bu weesu bëru kii dama ko def noonu ndax am na luy am ci diggante yi day tax léeg-léeg bu nit ki bëggee dimbale la sax du ko mën day tax léeg-léeg bu nit ki bëggee dimbale du ko ñeme ndax léeg-léeg nga joxe xibaar xibaar bi war a jëriñ duñ ko jëfandikoo. waaye léeg-léeg itam nga bëgg sax yow ci sa bopp léeg-léeg exemple bu ndaw rek accident dina am lan moo tax tey jii lu bëri am nit bëggul a seede ndax da ngay seede foog ne jeexal nga ci sa léegi nag loolu yàq sa soxla totali guddi daañu la woo bëccëg daañu la ngoon daañu la woo tisbaar daañu la woo timis daañu la te am na ñu bëri ñoo xam ne loolu lañuy ñuy faf tayal ba dañuy jàpp ne daal toog daal bañ ci sama yoon newu ci mm-hmm. moo gën fekk ne sa yoon a ngi ci mm-hmm. dañuy faral di wax ne ay li fekk yaa ngi koy dégg ko ci kon ma jàpp ne am na solo pour ku ci nekk nga gën bàyyiwaat xel man gëm naa ne ni ñu xamante nii dangay xool aj sëriñ dara day xew fii léegi léegi léegi léegi léegi dëgg la fi mu ne nii xaral xaral yëf xaral na torop wàllu jox ko waaye diggante nit ak nit la ba léegi lu jokkoo jokkoo bari bëri bëri bëri faaw nit ñi amante itte rek hmm. pour nit mbir mën a xew fii léegi base yëg ko léegi hmm. kantoora yëg ko léegi feneen yëg ko léegi feneen yëg léegi itte boobu laa ne buñ ci jógoon ñu xam ne lii raam te ñag ba la jëm te benn pombiteer bu yàqu mën naa yàq pombiteer bu yëpp ca saaku ba ku ci nekk nga jëlaat mbiri kaaraange gi nga def ko sa biir doo ko xar ci alaaj sëriñ kese waaye da jàpp ne alaaj sëriñ mënta nekk ci géew bi ba noppi nekk ci ñi seetaan kon am na lu koy doxe ginnaaw moom mu ngi jëm kanam man maa ko mën a gis boo ko gisee ma alaat ko li nga xam ne war nañ koo wax ñi nga xam ne ñoo yor woowu pour mbir mi yomb ci ñoom ñu jëf pexe jox leen ko ca nam gëne ñoom itam buñ leen ko joxee ñu xormaal loolu ndax am na ku may wax ne xam nga am na benn nombre boo xam ne amoon nañ ko fi. Mm-hmm. waaw dégg naa da da ngay jël nombre bi xale yi di jël nombre bi di leen woo di leen saaga. waaw xam nga yooyu ay mbir la yoo xam ne itam bu fekkee ne ñu war a wax ci dimbalewante faaw mu nekk ay mbir yoo xam ne lu ci nekk ñun amuñu lu bëri ñun amuñu lu ne gàññee da da nga eh, faaye saafis bii da nga ci am ñoo xam ne dañu lay woo ne la lakk am na bërëb sàngam fekk lakk amu fa jamono ba ngay wax loolu ñoom ñuy dem pour fay lakk googu te lakk googu amul ñu ngay use essence ñu ngay use te te amuñu ko. Mm-hmm. te diir booba am na leneen lu xew feneen loo xam ne xëy na bu fekkoon ne waxu loo leen ko woon ñoom doon nañ fa dem. ñoom li ci war a def ko sax Babacar mooy. Mm. <coughs> Eh, xam nga nax façon ngeen naxaate yooyu. waaw eh, mun naa jur musiba. musiba. ndax bu nekkee ne yow li nga cee enjoy rek mooy gis leen ñuy wiiri wiiri wiiri ak seen moto yi duñ gis dara ñu dem toog ëllëg sa kër mun naa tàkk nga woo leen ñu foog ne la leen wooyee woon bu njëkka loola la ñu bañ a ñëw nga soxla ndimbal doo ko jot fekk yaa xañ sa bopp fekk bopp yu bari nit an koo def nag dafaa wéññeeku dafay wàññeeku ci yow mm-hmm. ba ko defee acteurs comme ni waxee noonu ñu dimbale woon te ñu góor tey ñu xam ne amul benn réew moo xam ne di nga fa dem te doo fa fekk mbiri kaaraange yi du réew mi rek waaye nag xam nga li tax mu garaaw fii dañ ko xamutoon xamuñ ko woon te mën nañoo def pexe ba bu doon juróom ngay gis mu dem ba ngay gis benn waaye day fekk nag ñun itam ku ci nekk mbir mi nga jël ko def ko sa mbir di jokko ak ñu ngi ci war a jokkoo ci jamono dërëm bi bëri na solo lool waaye dañuy wax njëriñ loo fekkee njëriñ loo fekkee te bu fekkee ne nit dafa nekk sa biir kër di toog ci sa biir am na yoo xam ne dëgg-dëgg xel daf ko nanguwul sax nga gis koo xam ne bëccëg bi yëpp mi ngi koy nelaw <laughs> ah, guddi gi lu muy def waaye mu ngi dund dund koo xam ne ñi nga xam ne seen àdduna yëpp dañ ko liggéey defa man dama yaakaar ne seetlu wala ak itti bu gën a bëri mm-hmm. te nag jiital gëm yàlla xam ne la nga xam ne yàlla jox na la ko ci wërsëg incha allah doo fi jóge mukk te jotuloo mm-hmm. li ci des ñu rafet mm-hmm. waaw loolu daal laa gis xam nga jafe bi nag mooy ne eh, ndaw yi fi mu nekk ni eh, fañ def seen xel léegi dangaa gis xale yu góor yi eh, mun naax ne xale yu góor yi ndax ñoo ci ëpp ñoo xam ne nangoo ci ñoo jàng métier Eh, nangootuñoo liggéey soo waxee ñu ne liggéey amut waaye duñ jàng métier li ñoo xalaat rek mooy man Europe laa bugg dem di nga mere say waajur yi di nga jël seen dem nañ ci ba ci xam ne seen alali waajur set nañ ko jël kasaaral ko mooy su ma demut mantam yow tam doo kontaan mm-hmm. bu ko defee nag ñooñu ñooy def seen geng fuñ dégg ne gana nga fa ñu yaakaar ne kii am na fa alel mhm. ñu pexeel ko bu ko defee ñu dem xaar ba guddi ñu toj néegam daanu ci ko am rey ko ñee yeneen sax duñ gis bagaasam yeneen sax duñ gis ay bagaasam loolu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu amee kaaraangeeg wax nga